mbokki jullit yépp ñu may seetaan mbokk laa boo xam ne si maa ngi dund ci doomu jàngoro bu ñuy wax jàngoro Sida dund naa ak moom fukki at ak juróom doomu jàngoro bi doon loo xam ne si ne metti na metti waaye goo xam ne ku mu dollu rek mënoo koo nettali sama jëkkër laa nekkaloon ndekete am na doomu jàngoro Sida ba ba li mu génn àdduna ma door koo xam ginnaaw bi mu gaañoo nag ma doon feebar ay feebar yu sew sewaan yooyu ma dem hôpital def ñu defal ma analyse bi ma defalee analyse ci lañ ma xamal ne doomu jàngoro bi mu ngi ci sama yaram. moo ko xamee ak léegi nag yàgg na wante xaw na ma sonal trop ma bëggoon ko dégg fekkente ne am nga xam-xam ci lenn ci ci doomu jàngoro bi.